mbokk yi man làmb des fois damay toog ba ci yàgg ma ne lan moo xew ndax da fi gis champion boo xamante ni dafa mel ni gars yi dañ koy fàtte fàttelu wala boog dañ koy bëgg a génnee ci làmb ba tax na tey ma bëgg ko woo fii bëgg waxtaan ak moom ci kayam ci lim jot a jóge ak ci nga xamante ni moo nekk ci kanamam ndax njortul ñàkkul ñoo ngi koy proposé adversaire xanaa balaa mu ci sooy ma bàyyi ko mu nuyoo ñëwal waxtaan wi Tonnerre nuyu naa la. maa la ziar di nuyu waa Wassare gépp Eh, di sant yàlla bu baax di julli ci yeneen bi di sant suma ñaari waajur di nuyu waa kolobaan gi ma jóge di nuyu suma doomu ndey mandal mooy Alioune di nuyu suma gaa yëpp képp koo xam ne da son ci tona rek maa lay nuyu di nuyu suma waa dëkk waa Néewraan Touba Toul gi ma jóge mu ndondol Kër Laman Kër Caaf Dudul Ngaan Ngaan Touba Olof Touba Marché Sambaay di nuyu waa Touba gi yëpp daal turu Touba gi yëpp maa leen nuyu waaw. di nuyu waa Touba Toul mais dugg ci làmb. waa làmb maa ngi ci dugg 2016. 2016 2017. 2016 2017. waaw ñaata combats nga jot a def. def naa 16 combats. 16 combats ñaata victoire. 3 défaites laa ji am mosuma am niil. kana kana la daan. gàkku de moom a jëkk daan. Mm-hmm. laay góote daan ma. Mm-hmm. ak jin bu ak jin bu waaw ñetti defet yooyu daal nga ci am. parce que mel ni amoon na tonnerre numéro waaw am na. tonnerre nag sama benn doomu ndey bu ñuy wax Tafa Ndiaye moo ma ko tuddee woon quoi ndax tànk yi waaw ndax man moom dama bëggoon liggéey tànk quoi. waaw loolu tax ñu ma doon niroole ak moom. naa ma sa tànk comme tànku tonnerre yi ba tuddee ma noonu quoi waaw. Euh, sa premier combat kañ nga ko bëreel ak kañ la. sama premier combat maa ngi ko bëri ci arena tour bi. ci laa njëkk a bëri ci fin wu bi ci laa njëkk a bëri. ñu may wax ak euh, benn mbër bu ñuy wax euh, yokk. yokk la tuddoon. Mhm. waaw ma bëreeg moom daan ko. waaw après ci laa jóge jël Oussou Ndiaye. benn mbër bu ñuy wax Usu Njaay. waaw jóge ci jël benn mbër bu ñuy wax Belende. ma jógee ci Belende. Mm-hmm. ñu jox ma booy Diop. ma jël booy Diop. ban Boy jël Boy Diop daan ko. Mm-hmm. ñu jox ma euh, combat Sa ak euh, sita ma bëri spécial bi man ak musique bu caaroy. musique waaw bi ma jógee ci musique. jël euh, Petit Niang. Petit Niang waaw. daan taxaw foofu seen combat bu metti yàgg Petit Niang. lan la woon sa diggante moom da ngeen toll woon doole wala lan la parce que dama gis ngeen bëgg combat bu metti teg loo lal mu laal li loo teg mu teggi ngeen bëgg combat bu metti bu yàgg yéen ñaa parce que euh, Petit Niang bi ma koy jël sax suma staff ñi ñi bariwuñu ko quoi mais dama leen a xamal ne bu ma demee ba mënumaa daan Petit Niang ma bàyyi làmb. lan moo taxoon ñu bañ. dañoo jàppoon ne Petit Niang moo la mën. waaw loolu lañ jàppoon. ñoom loolu lañu jàppoon mais suma capacité xam naa ne Petit Niang mënuma daan bu fekkee man mënuma bu jamono boobu ma daan Petit Niang damay bàyyi parce que xam naa li ci sama kanam moo gën a tar Petit Niang foofu loolu moo waraloon ma jël ko biñ koy jël nag yokkoon naa poids après suma gars yi gis ko Magal tuubaa ñu ne ma Petit Niang mi ñu gis Magal Touba poids bii nga bu ngeen bëree mooy loolu de waaw bu ngeen demee ba egg ci jëlu séddoo da ngay da ngay ndax sa poids bi dafa bëri. Hmm. waaw ndax moom Mourtani la préparé woon combat boobu waaw. nga daan ma daan ko parce que bëri nañ nag champion la te combat bu métti lañ bëri demee nag ci jëlu seddoo dama ko suppeles quoi ma rocceeku ko mu dóor mu dóor nga jógee ci am kan. ma jóge ci jël Youssou Ndour. Youssou waaw. bi ngay jël Youssou Ndour say àndandoo wala say jege ñaale ba ñu ñëwoon combat boobu. Youssou Ndour maa ko jëlal sama bopp. doo ko jëlal ko sa bopp. waaw maa ko jëlal sama bopp waaw parce que dafa bëri wax trop comprendre nga ndax dañ ko mos a dégg micro mu ne man ñemewuma ko. mu ne tonnerre ñemewu ko mu ne tonnerre ñemewu ko boobu waxu mbër bëgg nga nga jël combat bi rek mais boobu man tamit pare naa woon pour bëreeg moom. mais moment boobu ñu gis ne nga amoon ali bu baax amoon ali bu gaaw ba tax na bi nga ñëwee ñaar combat bi sax yàggul mais coow li bàyyi ci. waaw coow mënta ñàkk ci suma combat ak moom parce que noonu la tàmbalee te looloo ko taxawal coow ko taxawal di ci euh, nuyuwaat Thialis Faye en passage ndax moom moo ko mbaa boobu mu ngi woowoon sama benn suñu président ASC muy Thierno Ndiaye nu njaay la ci woowaloon Thierno Ndiaye moom ma woo sax ne ma caalis dafa bëgg sa combat waaw dafa bëgg sa combat quoi ma ne ko ah ne ma waaw ma ne ko amul problème maa kan mu ne ma yàgg Youssou Ndour ma ne ko yow jox leen sa accord parce que kooku dafa son ci man dafa may defal lu ne moom Thierno Ndiaye kon bu gisee sama combat rek ne ma combat bi lañ lay wax te moom mu bokkoon ci ma nekk lu ma rafetlu waa ma jël combat bi di ko nuyu en passage moom Thierno Ndiaye day son ci man trop day jàpp ci sumay combat nga jàpp ko kutu kut koo zongale. parce que ci xeex la ma doon woo ci xeex la ma doon woo pare woon naa pour côté yëpp nag. mais dama gën a gis lu gën a efficace waaw parce que moom ci biir waxam dañu weet man ak moom mu ne ma nañu bëri. moom waaw loolu fan ci combat bi la wala ci ci signature yi ñu taxaw ci couloir bi mu ne ma da mën a bëri la ñu wax te danga mën a jàpp nañu bëri man ne ko man lépp loo pare pare naa ci bu fekkee bëri nga pare pare mooy loolu waaw. mais moom dafa ñëw pour chercher bëre bi ma ñëw pour chercher parce que benn coup a sànni coup bu mu sànni ku ko gis xam nga ne kii dafa sànni coup rek pour bëgg a jàpp mais du pour xeex waaw. ma jàpp ko songale ko mu bañ mu mu repéelu jóg calme comprendre nga. Mm-hmm. ma ma ma gën a kal bi yëkkatiwaat ko bi muy rëpp ci la dóor mbootu nañ taqalikoo comprendre nga. Mm-hmm. ma ni ma ma saj ko sama loxo ci kaw boo gisee sama loxo laa saj ci kaw mu dóor mu dóor mbag bi comprendre nga man bi muy dóor mbag bi sax yëgu ma ne yëgu ma ne daanu na mais après ci la arbitre bi ate jox ma jox ma victoire est-ce que fii benn combat yomb fii parce que Youssou Ndour champion la champion la du question ni làmb bi jeex mais champion la ndaanaan la waaw du xeex bi rek la mën dafa mën bëre dafa mën bëre te man mu bëre moom xam naa ne ku mën bëre la waaw. bi ma jógee ci Youssou Ndour nag mm, ci laa xaw a def erreur ci sama carrière dem jëli mbër boo xamante ne si mbër bu déju la waaw mooy laay goote comprendre nga te laay goote bi ma koy jël du man maa ko jël boobu du na ma jël parce que boobu maay waalo ñu woo ma ne ma sa combat ak laay goote taxaw na de jël nañ avance bi. man leen loolu du combat. est ce que mbër yi des fois damay dégg ñaan sama staff sama staff est que mbër yi des fois am nañu staff. non am nañ staf wala ñu tuddee ko li nga xamante ne si mooy ñi nga xam ñoom nga nekkal te mënoo bañ seeni waaw. comprendre nga mën nga naka ngay jóge ci Youssou Ndour daan ko jógee fa dal fa dem jëli ko côté. waaw boobu parce que làmb bi dafa bari dafa bari moytu wante. Hmm. te loolu nag seetlu naa ko comme ça da ngay gis mbër boo xamante ne si defu fi dara. Hmm. defu fi dara comprendre nga si di seeti la. nga génn ci sa kàddu benn moo boo xamante ne si dañ koy jël dugal ko ci réseaux sociaux yi TikTok yi xam mm-hmm. mu commencé may la bës ba yow da ngay war a mu leer la ne kii moo tonnerre combat la mais bës bi mu am Sidi ñoo ko may. Mm-hmm. comprendre nga parce que yi tamit am na am na am na am na lu ñu suyee ci côté boobu loo xamante ne si tamit mooy lool parce que da ngay jëli benn mbër boo xamante ne si def fi dara comprendre nga mu commencé aj aj niveau mi yeeg di wax yéen wax yoo xam kenn xamu ko parce que dangay gis ñoo xamante ne sii tey tonnerre ñi mu war a bëreel ku ci ne xam na ne tonnerre yaa may dégg war na mën a am adversaire bu yomb mais da ngay seeti mun a diw raw naa kii diw raw naa ki ay combat yoo xamante ni comme ku ci mel ni ay ay ay ay ay Ziza comprendre nga jëm ci kaw. ñëwoon ma sa combat yi ak Laye Gothé naka ngeen bëree. Laye Gothé dañu bëree mën ak moom comprendre nga. ma décoller pour Sonko moom fekk na moom départ na te njool la mm-hmm. bu fekkee moo ma jëkk ci sama tànk du ma jot ci tànkam mm-hmm. ma sigi añ ko am ñaari ngem mu daw gen saaku yi arbitre avertir ko mu ñëwaat fi ñu taxawoon fi lañ taxawaat bëre mu jël sama tànk avant may sigi mu mu daw ak man waaw waaw mu daan ma waaw fa jël kan ma jóge fa jël jiin bu yoof li nga bëri kenn xamu ko. waaw man li ma bëri xam naa ko. <laughs> non mais mais man mënu ma mënu ma mënu ma nangu nga jàkkaarloog jun bu yoofu jin bu yoof sut la ëpp la taxawaay mais Tonnerre kenn xamul ban Tonnerre ñëpp naan dafa yàqu ba ñu xamoon Tonnerre nangootu la entraîné lan moo nekkoon problème non du question bañ a entraîné parce que man ñi ma wër ñëpp suma entourage suma staff xam nañ ne Tonnerre nekkul mbër boo xamante ne si mbër buy yox yoxi ci entraînement la parce que man loolu mooy sama premier man duma dem sax di doxee mystique man sama bopp sama bopp laa taal man. sama entraînement tonne tonne da am os. waaw bu nga xam ne kii dafa liggéey. mais combat boobu tone da cee liggéey dama ci liggéey dama ci liggéey ba son parce que man defet dama ko bañ bëgguma ko man xaw ma daanu daan laa xam. mais baa boobu ñëpp nañ tone def ci bëre mais d' accord naa bëre ci erreur parce que bët bi may bët bi may départ sama tànk bi nga xam ne ci laa dëju muy seize bi ah. kon da nga doon bëtt noonu. dama doon dama fi dama ko doon bët. Ah, dama ko doon bëtt mais sama tànk moo glissé. sama tànk moo glissé. comprendre nga amatuma appui moom mu weer mu poids ma ànd ak moom dem. parce que boobu amatuma appui parce que sama sama ñaari loxo yëpp a ngi ci biir te def ko fermé. pour ma génn pour mën a. pour mën a teg mooy li ma la moo la moo li nga bëgg kan xamul lan la. sa ñaari loxo nit ki nit bala nga koo bët sa ñaari loxo yi day nekk ci biir moom mu mbaar la mais loxoy borom mënta ne ci biir nga koy bët parce que bi may bët man sama loxo yaa ci biir foog ma génn comprendre suwaat ma gën a gauche suwaat ma gën a droite mais foog ma génn pour mën a def li ma bëgg a def waaw. man comme man jiin maa daan sama bopp du moom moo ma daan man maa daan sama maa daan sama bopp. yaa def kele bi kele bi mooy li ma la wax mbër mbër dina daan boppam comme comme boo xoolee comme euh, passage Serigne Ndiaye combat yi passé parce que luur yi moom rek moo ci luur boo xamante ne si day bëre bëre boo xamante ne si day curux curuxi mais bu doon dafay jàpp comme gars yi keroog euh, kii bi mën na ko jël mais dafa bëre ba def kaat abi moo bëre ba daan boppam. ndaanaan la moom Serigne Ndiaye ñoo ngi koy nuyu bu baax baax mais ñu gis la nga daanu ci bopp gars yi fàtte la. waaw mooy li ma la wax nag xam nga làmb souvent mu suul ndaanaan ci kaw mbër yi nga war a bëril. bëgg laay gote bëgg jin bu yoof bëgg petit ñaar. bëgg musique. bëgg bëgg la fàtte nii bëgg la rey ci làmb. waaw te musique mooy ki jëkk a fere ne soq ci làmb waaw comprendre nga mais làmb moo yomb suul ndaanaan. souvent làmb ji moo demee noonu souvent du ñu xool ne kii lii la fi def mais làmb léegi boo daanoo da ngay dem boo daanoo boo daanee da ngay dem boo daanee xaar. mais ma li ma jaaxal yi ah. nekk ci mbër yëpp mu ci yow boo tuusee mu neex boo ñëwee ànd ambiance ànd état te da ngay bëri. waaw xam nga bu ñu defee sondage ñu ne Tonnerre de maanaam tuusu mbëri ndaw yi Tonnerre de moo ci jël première saison bi passé bi ma bi ma bi ma bi ma mujj a bëri saison bi ma mujj a bëri. Mhm. maire maire maire maire tuus man maa jël. comprendre ga mhm. maanaam du leen man du gisuma gisuma loo xamante ni si lu ma tele la d'accord nag làmb nag mën nga ci def ay erreurs. waaw di nuyu Baye Jili en passant sama doomu ndey Baye Jili Sanche maa ngi koy nuyu baax Colobane Sanche di nuyu Baye Jili Tarkinda waaw ñooñu suma ay nit lañ yoo xamante ne si dañuy son ci man quoi di jàpp ci man waaw di ñaanal suma rak tamit koña combat bi mu jëm yàlla suñu borom may ko ci ndam lu set guy waaw di féliciter Mor Kanka tamit di ko ñaanal nii rek bu roi defe ah. naa ni euh, moo kànkang da la jëlali revanche. sama sama revanche ak kan. jiin la jël de. jiin non non combat boobu taxawul de. ah da nga taxaw jiin ba ki démb la ne combat moo moo kànkang. xëj na moom moo bëgg a bëreeg Mor Kanka. waaw mais man jàpp naa ne yoonu làmb Mor Kanka du jiin quoi. waaw hmm. ah, mais léegi lan mooy la mooy lan mooy problème bi ci sa carrière boobu ak léegi. waaw sama carrière yaa bëggagul bëri wala wala naka man suba suba bu ma amoon combat bëri mais yi dañ may moytu waaw. mais nag Tonnerre di la moytu loolu mënu que tey xam nga tey gaynde mën nay nelaw. Mhm. nga laal ko rek daw. comprendre nga. Mhm. na ñoo xamante ni gaynde mën nay nelaw nga laal daw comprendre nga mais am na ñoo xamante ni si amuñu fitu sax. dem di ko laal parce que dañoo foog ne maanaam liñ koy tuddee moo ngi nelaw ci moom. te ko laalee mu yeewu. waaw te man am na loo xamante ne si man gëm naa ne dafa yeewu ci man fi mu toll nii ku ko laal rek laay xaar. kon fi mu toll nii euh, tonnerre ma ñu xamoon tonnerre ma ñu daan gis bu boobu moo dellusiwaat wala bu ko raw. te du ay wax sax lay doon dafay nekk loo xam ne jëf lay doon jëf parce que. maa ngi nuyu suma coach su nag suma coach su Max maa ngi koy nuyu aw ma fayam mook Dijé ak coach su Moussa parce que instant bii nii buñ demee ba mën a gisaat tonnerre ci làmb ah grace à coach su Max parce que tonnerre dafa nekkoon ci jafe-jafe boo xamante ne si parce que euh, durant corona bi yëpp maa ngi woon Casamance di mbapat daa may mm-hmm. di bëri ay combat nommé nekk benn dëkk bu ñuy wax kaña boo nekkoon seen mbër nag ñoom ñoom a waaw jël naa fa ay drapeau yu bari nag yi ma amoon foofu foofu laa ko jaay mais euh, dama ci dama bëree benn benn combat boo xamante ne si jour boobu kii man maa bëri spécial bi général Malika ak Ibou Ndiaye mii ñoo bëri grand combat bi Casamance. comprendre nga ci laa amee nag benn blessure ci épaule épaule bi amul problème mais grâce à Max moo tax ma dellusiwaat ci lam suma coach su Max waaw maa ngi koy sant bu wér a wér a wér a wér waaw ah, bu fayal fi mu toll nii boo ma dee limal say adversaire wala ñi nga xamante nii jàpp nga ne sa diggante ak ñoom jaadu na ñan dafa am ñoo xamante ne si dama war a bëri ak ñoom. dafa am ñoo xamante ne si dañ ma wax sama kombaa ak ñoom ba ci biir ñu daw. te bu ma toogee fii ci wasaare làmb ne leen yow sama combat diw ak diw dox nañ sama combat ak yow nga daw diw ak diw sama combat wax nañ ko bu bu desul avance bi mu delloo ko. ñan lañ dox sa combat yow ñoom ñu bañ. sama combat dox nañ ko man ak Alioune Seye Junior. Alioune Seye mos naa laa woo wax la ko. waaw dem nañ ba desul lu jël avance. ci suñu football yi ci laa xam ne pareetul pour bëre ak man Maguette Seck daje nañu làmb mu ne ma xoolal promoteur bu teg sama combat ak yow comme danga may laaj ma ko dañoo war a bëre du question man lay laaj mais dañoo war a bëre da nga ne ci sama yoon comprendre nga ci sama yoon ci nga taxaw te dama laa war a puus jàll mu ne pare na mu ne pare na bàyyi gi mënta weesu ñu dem ba desul lu indi la avance bi nga naan c'est que sama sama staff nii sama staff na te souvent nga wax loo xam ne staff bi du du staff bi mooy jël décision boobu yow mbër bi yaa jël sa décision boobu mhm. waaw Ziza nag sama combat ak moom ñu ngi ci ñu ngi ci mais euh, dafa war na bëri ak di ñëw foog naa te combat bi mujjul am mais ñu ngi demaat si sama komba ak Ziza waaw mais Ziza sax yéen ñaar da ngeen bokk ku ci nekk daan Petit waaw looloo ñu boole. moom yow daan Petit lu yàgg moom bëgg dem lu mujjee daan Petit Niang. looloo ñu boole. pare nga bu jot ay Ziza ay gàmmu géey yëpp amuñu combat. gàmmu géey moom mer la fanaanoo bu ko boole ci affaire yi. waaw waaye gàmmu géey buñ nee mer la fanaanoo kon tonnerre nan la war a def. kenn xamu ko. gàmmu <laughs> géey mer la fanaanoo. waaw man mi ci man mi ci man mi ci toog nii may wax ak nii nag toog ci mer bi nii di wax ak yow nii ci meer laa toog te gàmmu gi kon yeewu na. kon fi mu toll nii moo sa ñàngal gu métti gi. parce que da nga a tooyal xaftaan. pare naa bu doon suba suba pare naa waaw. waaye ñaanal sama yaay nag maa koy ñaanal wér di ñaanal sum papa fu mu nekk gënal ko fi mu jóge di ko ñaanal bu wër yaay maa ngi lay ñaanal nga yàgg fi boo fekkee sama njariñ waaw di nuyu waa Wakaam tamit. waaw waa Colobane Fass Gueule Tapée gi yëpp maa ngi leen di nuyu lu baree bëri doole Thierno nu gën a la jàpp ci écurie Colobane bi mu jëm ca kanam Colobane buñ ne am na mbër ñu dem ba mu yàgg ñu ne écurie bi taxaw na carrément kon gën cee dugal sa loxo bàyyi ji li sànce bàyyi ji li tarkindaa waaw maa ngi leen di sant bu wër a wër a wër waaw di nuyu suma staff Mor Diouf Rijal Diop Jibi waaw El Hadj Sarr maa leen nuyu ñoom ñëpp waaw di nuyu sama génération 2001 bi yëpp maa ngi leen di nuyu ah, sama waa génération 2001 bi yëpp nuyu naa leen waaw. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo ci wasaare làmb dañuy xool ñi nga xamante ni mbokk yi bokk nañ ci làmb wala ñi nga xamante ni gëj nañ leen a gis ci làmb wala ñi nga xamante ni làmb dafa amoon ci ñoom yaakaar te kenn gisatu leen kenn déggatu leen Tonnerre mbokk dafa bokk ci xale yi nga xamante ni làmb da ko bàyyi woon xel. dafa bokk ci xale yi nga xamante ni bu bëyee mu neex bu bàkkoo mu neex fi mu toll nii nag kenn gisatu ko te fi may wax ak yow bi mu fi toog ak léegi dégg naa promoteur boo xamante ne moo ngi dox combat di wax ne nag ñun lii rek moo ñu fi tax a toog Tonnerre dafa ba Tonnerre dafa bokk ci xale yi nga xamante ni dañoo war mën a doxal làmb ndax làmb gis nañ fan yi promoteur yaa ngi def ay jéego di xool xale yi di leen doxal combat wala di taxawal combat yi nga xamante ne ni moom la amateur yi bëgg kii nag moom bëgg nañ balaa mu fi jógee wala bu fi jógee ñu ne Tonnerre combat taxaw na wala combat moom diw tuutee ci des boo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax. bu ma amoon kàddu yu mujj maanaam ci benn côté dama ci bëgg a wax rek maanaam bëri ñiy tuddee mbooloo am na promoteur bu doon dox samay dox samay combat ma koy bëril man amul benn mbër boo xamante ne si ah jàpp naa ne ëpp nga ma mbooloo comprendre nga. Mm. mais dafay tollu situation boo xamante ne si situation oblige lañ koy tuddee du mën a ñàkk mais promoteur bi may teg man ay man maay maay demandé pour laaj ko ay ay billets. ne ko jox may billet bëgguma samay supporter la rang ci stade bi. loo xamante dama leen di weer si loxo ay million yoo xamante ne si maanaam indi leen ko yoo xam man fay ñu ma ko sax. Hmm. waaw comprendre nga. di nuyu en passage euh, Fallou Ndiaye Assane Ndiaye maa leen nuyu bu wér a wér a wér a wér di nuyu sama fan ci club fan ci club Tonnerre 2 yëpp maa leen di nuyu. di leen wax ñu gën a jàpp quoi waaw ndax mbër pare na quoi pare na liñ doon xalaat muy préparé nekkuma ci dama pare instant bi waaw. Ah. gis dama pare di leen jox dig daje. beneen yoon ci jàmmaarloo. mais damay damay damay nuyu sama waa dëkk bi nag waa dëkk bi waa Touba Toul Caacaw Ker Laman kër Caaf Ngaan Ngaan Dudul kër Laman di nuyu waa Newraan sama dëkk waa Sambaay Seeseen Njon di nuyu juróom-ñaari njeefun yëpp waa Ngas di leen nuyu ñoom ñëpp fu sama supporter nekk rek maa ngi lay nuyu. waaw di nuyu sama doomu ndey Dame Thiam Dame Thiam maa ngi koy nuyu bu baax a baax borom Argentine borom Saam Yabal maa ngi koy nuyu bu baax di nuy sama rak Fallou di nuyu ñëpp di sant waa Wasaare Lam parce que affaire bi dafa dafa nekk loo xamante ni si euh, kenn mënu ko fay quoi benn acte bu rafet acte noble la parce que nit dem nekk ci làmb ba ñëpp xam ko ci làmb mu jëkkee jëkki ñu ne ah mbër bi daan na diw daan na diw comprendre nga te mënul avancer tonnerre mbër ko daan yëpp mbër ko daan yëpp man du nekkul ne mbër yi ma daan du question soxor wala dara mais mbër yi ma daan man nekkul mbër yoo xamante ne si puus nañu ba léegi jot naa ne rawe ma benn paa ñoo ma daan mais rawe ma benn paa. Mm-hmm. waaw ñi ma daan ñëpp laa la wax nag. maanaam ngi ci ñoom. ñi ma daan mbër yi nga xamante ni ñoo ma daan man. Mm-hmm. defuñu benn maanaam rawewuñ ma benn jéego. xam nga mbër bi la daan ñu ne eh mbër bii moo daan tonnerre mu nga ca kanam kanam. Mm-hmm. amul ci ci làmb ji gisuma ko gisuma du Petit Niang du kii du du du du Laay Goote du Gàkku de waaw tey jii nii nii soxlaa guma leen nii pour bu doon ramas soxlaa guma leen nii. doon daal li sa kanam daal li ci sama kanam laay xool. di nuyu sama doomu ndey maa daal muy Aline Sey di sant suma waa kër nag Maguette Faye maire Dieye Aïda Diallo Fatima di ñaaña Marème Fall maa ngi nuyu ñoom ñëpp waaw jaajëfal waa wasaare lam di leen wax ne affaire bi yàlla na dem ba nekk tele télé bu mag a mag a mag maa koy ñaan ci yàlla waaw jaajëf. gis ngeen yàlla nekk télé bu mag a mag di ko wax amin di leen jox dig daje beneen yoon ci jàmmaarloo ci wasaare làmb jaa ngeen jëf.